waaw fay naa la bu baax te digganteeg Médoune. ah loolu yàgg na loolu def na presque vingt ans léegi ba ñuy ànd ci Bantamba depuis deux mille cinq su ma jublu. yan qualité mën na ci Médoune. ah non ku baax la ku tabe la ku baax la et ku mën a liggéey nag fonk liggéeyam nekk jàmbaar. boo amoon loo koy dolli lan lay doon. a ah, da nga a jàpp rek xam nga li ko ba mel nii bul ko mos a jeex na tàkk. maa ngi nuyu naa. maa ngi lay ziar Fadal. digganteeg Médoune. waaw Médoune suñu jumeau la yàlla dogal dafa dogal ñoo nekk noonu di liggéey mu ñëw fekk ma 2STV ñu bàyyandoo même jour 2STV demandoo même jour TFM man ak moom waaw. waaw man loo dolli lan lay doon. non aw ma aw dara lu dolli man bu dolli daam yaakaar naa Médoune moom war a dolli parce que kilifa boo xam ne dafa oyof oyof boo xam ne tey durant li ñuy liggéey yëpp lu ma lu ma ko def lii du ci teg baat. et pourtant amul dara amul dara bu ma ko ëpp wala dara lu ko ëpp lu ma ko ne Medoune def ko du ci rek baat vraiment donc soo amee lu muy dolli moom moo ma koy dolli parce que man ci moom laay roy jërëjëf Maawa Cissé Kalaji ni ngay taxawee waay mbaam na jàmm ziar naa la ziar tey yéen ay xeetu Medoune yoo xam ne ànd ngeen plus de vingt ans kan mooy Medoune waaw Medoune baax rek vraiment bu ñuy wax ci moom ñu pare mais nit bu baax la ba pare mën liggéeyam xam nga ànd bu yàgg rek mooy mooy lii quoi et puis sax fi ñuy liggéeyee mais yaa ngi gis lépp a ngi rafet ba léegi mais vraiment. ma gis photo Bantamba photo Bantamba laa gis tey. waaw waaw waaw Bantamba bu ñu nii nag vraiment lu ne def nañ waaw lu def nañ ko mais gis nga voilà voilà macha allah daal. tey boo nekkee xale yi yàlla def tey ba am tey. ka yàlla mooy réussiral waaye joué ko ci lu bari bu ngay féete ci xale yi waaye ñu féete ci yow lan ngay yëg. na dama am dafa am kenn ku manqué rek mu di Babacar Ndiaye moo manqué karaajo ngi dégg nga mais lii fierté la sama xol dafa sedd parce que lii yàgg na ñii ñoo développé lamb ñii foo dégg làmb rek ci média médiatiquement ñoom ñoo ci indi beneen vision beneen gis beneen façon ci wàllu montage ci wàllu filmer mais du day gàddu caméra daw 100 mètres jóge di dàq mbër bi ba poto bee tous Médoune am Bantamba mu doon ay insolite ay couloir coulisse lépp nga ko doon gis artistes yi bokk ñëpp bekk fecckat yi Médoune la woon te booba dama ko naan rek demal àndal ak Mansour lu ngeen filmer baax na mais lu ngeen a baax na boobu la baax ca Bantamba moom mi moo ko moo tax bi mu xew xewlee nii te kii lépp moom la kii lépp moom la mooy le monteur le meilleur au Sénégal le meilleur en ah, Mansour wàllu son bu nu demee ba ñëw ñu ne mais ni ngeen jëlee musique tous beeg yooyu amul moom mii la boo jëmee ci réalisation ñuy def direct ñu ne ni ñëpp seetaan 2S maa aussi c'est boo jëmee ci fois boo jëmee ci fois waaw macha allah loolu lépp xam nga lan moo ko waral musique bee neex man damay woy rek teg ci kaw danoo tëgg ko musique bi neex na man duma def lu dul ni ko Mbaye Gueye Faye di waxee ah gars yi dañuy tëgg mu neex yuusu woy ci kawam noonu rek mun na demee ñoom ñii ñoo defar lépp ah, direct bi gën a da neex ci direct bu am ci làmp moom mii moo ko réalisé Modou Lo Balla Gaye c'est yi naaw lépp ngi nii moo tax bu ñu taxawee vraiment fii nii ñu taxawee nii daf ma neex dama ci am plaisir moo tax melu nu woon nii ah affaire bi demeewul woon nii ah boobu on était cela ah, mais léegi xoolal lépp ñëw nañu sant yàlla la. Ah, durant ànd bi yan souvenir moo la ci gën a marqué yoo xam ne day ñëw sa bopp tout le temps. mais souvenirs yi mooy yenn saa yi ñu xeex <laughs> yenn saa yi ñu dem ci làmb di reporter suñu reportage di wax dëgg. benn reporter topp na et eh, du dégg waaw dem nañu Fatick ah, ah may def plateau séeréer yi song ma ni day fen waaw ay menaces ay am na nañu ay menaces de mort am nañu lu ne ñi ngi nuy gis nii lu ne mais ñu dëgër mais ñu dëgër ànd ànd léegi c'est vrai nekkatuñu ñun ñëpp mais ñoo ngi ba léegi on est ensemble duñ tàggalikoo ay xale yu baax ngi nii xale yu am jom a ngi nii xale yoo bëgg seen liggéey boo gisee caméra yi bari ku nekk bëgg a filmer ñii la ñii la waaye as yow lépp yow la ndax yow tamit c'est quelqu'un très social yow da ngaa baax ba pare di déglu yaatal yow yow amoo sens interdit ci kenn ñaan gudd fan waaye ci ñoom la xam nga benn jour dama dugg ci lamb Mansour ak Babacar naawal ma dal sama kaw Jules Balde woo ma ni ma ne yow booy yi ñoo lay seef <laughs> ma ne ko mais ñii ñooy samay seef bu leen xeeb xale yi parce que il faut ma topp ci leen may wax surtout man bi ma jógee ci rajo nga am dama yor micro bi naan ratatat ratatat ñu ne ma eh lii télé la waxal ndànk def ndànk ñu li si des ñun dinañ ko filme xam nga jàngal nan la waaw moo tax vraiment dama leen di gërëm dama kontaan ci ñii dama kontaan. kii xale bi yàlla na yàlla guddal fanam jinde xale bi yàlla na yàlla guddal fanam yàlla yokk taxawaayam ndaxte bari na bari bari bari na ñuy monte waaye kenn du ci moom. bari na loo koy bari na loo koy. parce que kii beneen affaire la yàlla na yàlla guddal fanam Médoune lii nga fi am yàlla na barkeel ci barke yonent bi maawo ba léegi ji TFM ka mu kenn du fa def waxu làmb wala religion te woowoo ko jox ko Mansour fa mu newoon ba léegi ma nga fa Babacar Ndiaye fa mu nekk yàlla na yàlla guddal fanam ndaxte ci la bokk équipe bi daal a ngi nii lii daal mooy Bantamba. Bantamba original bi. original bi mi ngi nii. Médoune woote ñu wuy si la nan lay mel su si ñu ko bokkal. waaw mais man sama sedd ba mënu maa wax ndax xam nga xam nga ñun ay ay homme de l'ombre lañ ñuy wax ñun ñun sax wax. alhamdulilahi rabbil alamin donc dañoo ñëw fekk El Hadj bëggal ñu boppam te teel ñu boppam ag tey jii moo nekk nit boo xam ne tey su ma ko meree jaaxle na loolu yëpp mooy wane ne kilifa gu oyof noonu lay mel moom dafa bëgg nit ku jógee point A jëm point B xam nga di nga nekk sa patron mu bëgg doo yokk ni kii boo nekkee moom day bëgg nga tàmbalee ca sareet jëm kat waaw loolu xam nga xol bu laab moo koy def waaw daf naan ma bi ñuy ànd naan foo jaar yoon la waaw lay fay la nga leble dëgg la mbaw vraiment maa ngi lay waaye di siyaar Cheikh Mbaye Tidiane mii bu sedd xam gis ko ci baas waxtu yu yombul de wala bakaay dimanche jot mu war a dem làmb nga gis waaw bu bàyyi loolu yëpp ñëw ci bâche maawo Mansour Gueye Karaajo ñi amuñu jot billaay wallaay taalaay classe kooku dajale loo bokk mu ne yàgg ñi dañoo yàgg ñii man bu ma bu ma bu ma bu ma indee image dama koy wan ginnaaw jaratu ma koy lijjanti parce que parce que waaw keroog ba may nekk ci Balla Gaye di ba fekk fële ca euh, Sida Fadia loolu nga wax ni sama seex la dëgg la ak seen doomu nday bi ci ginnaaw. yàlla nangu na ko. waaye nag kàddu gi ñuy wax dañ koy wax jëmale ko ci alaaji Medoune. Medoune dëgg yi. mooy maa wax kontaan naa.